gis ngeen bële passé dama bind benn question écrite ma adressé ko ministre des forces armées ndaxte dafa am ñeenti gendarme yi nekk Meknes benn école de formation yi ñu yóbbu gendarme yi Meknes ma kii Maroc ñu ne gendarme yi ñu yónni Meknes bu ñu ñibbisee dañuy monter de grade ma laaj ministre des forces armées ne ko est-ce loolu dëgg la bu dee dëgg la juróom yi di ñëw jóge Meknès Maroc ñëwaat ndax dañuy monter grade bu dee dëgg la am na am na tamit benn gendarme boo xam ne <clears throat> moom dafa jóge Meknès ay weer a ngi ba léegi monté wul grade xam naa ne ministre des forces armées gisagul sax question écrite bi gendarmerie jàpp benn gendarme euh, ani AGK ani Aliou Aliou mu ngi fii oh c'est dommage gendarme bi dama fàtte turam mooy gendarme bi ma doon wax ne Maroc la jóge Meknes la jógee. AGK mais comment s'appelle le gendarme Sidi. Euh, Sidi Niang Sidi Niang gendarme bi mu ngi tudd Sidi Niang gendarmerie convoqué ko jox ko demande d'explication mu ne ko yow gendarme Sidi Niang yow yaa informé Guy Marius Sagna lu tax nga informé Guy Marius Sagna léegi dugal nañ la kaso il est toujours en prison dugal nañ ko kaso biir gendarmerie. on n'a pas encore obtenu alors. sa femme est déjà il faut que gendarmerie wax ñu fan la teg ne Sidi Niang man moom a informé mais deuxièmement même bu fekkoon Sidi Niang moo ma informé xanaa gendarme du citoyen sénégalais. xanaa député du député tous les citoyens sénégalais. xanaa kon policiers yi amuñu sañ-sañ wax ak seen député. waaw xanaa gendarme yi bu ñu amee jafe-jafe amuñu sañ-sañ informer seen député donc ñu ngi ñaan ministre des forces armées injustice boobu c'était nag avant ñu ngi ko ñu ngi ko tëj kaso avant avant ñu fay jëlee général Moussa Fall il faut tamit ñu xool comment régler cas yooyu gendarme yi sonn nañu policiers yi sonn nañu am na ay policiers yoo xam ne foofu laay pare ñii moom man sawar naa pour waxal leen ndaxte mënuñu def conférence de presse ñeneen ñi mën nañ def communiqué mën nañ def conférence de presse am na policiers yoo xam ne nee nañ ma nee nañ ma diggante 2021 ak tey yenn saay ñu jox leen ay ordre pour ñu daanu ci kaw ay sénégalais. ñoom ñu ne wax dëgg yàlla jàpp nañ ne ordre bi c'est un ordre manifestement illégal je crois que ñun ñëpp suñu jàng soriwul waaye xam nañ luy ordre manifestement illégal ñun ñëpp a commencer par man suñu jàng soriwul waaye on connaît la théorie des baïonnettes intelligentes maanaam yow homme de tenue yow muy yor yow muy yor fetal sa fetal bi dafa war a ànd ak xel buñ la yóbbuwee suba tribunal munoo lay naan ordre la woon déedéet loolu mooy la théorie des baïonnettes intelligentes nekkatul lay depuis Nuremberg depuis jamono Hitler la ñu wax homme de tenue mënatul wax bu ñu koy jugé ne man dañ ma jox ordre te ñun bu ñu joxee ordre dañ déedéet dañ leen ne da ngay xool yow itam ndax ordre bi c'est un ordre légal ou manifestement illégal. léegi policiers yooyu ne te xam ngeen ne policiers yi ñenn ñi dañ doon def loo xam ne du dëgg du yoon. yéen xam ngeen ko ñun xam nañ ko. ñu ne ñoom dañ leen doon jox ay ordre yoo xam ne jàpp nañ ne lii baaxul du lii lañ leen formé ñu bañ. xam ngeen lu ñu def dañoo suspendre seen salaire policiers yi dem fin du mois di fayeeku ñu ne leen amu leen payoor deuxième mois fayeeku amul payoor ñuy wàcc di yéeg troisième mois am na policiers yoo xam ne téye nañ seen ñeent juróom juróom benn payoor nee nañ finalement bi ñu yéegee di wàcc yéeg di wàcc yéeg di wàcc benn bureau ci police na leen dañ leen sanctionné ndaxte xaw ma da ngeen bañoon def lan joxuñu leen demande d'explication yóbbu wuñ leen conseil de disipline notifié wuñ leen ne dañuy dagg seen salaire ñu war a fay luwaas fay dépense fay facture ñeenti weer juróomi weer policiers yooyu kenn fayu leen gouvernement bi nag xam naa ne bëri na ay dossiers waaye foog mu xool dossiers yooyu itam foog mu xool dossier UNO dossier AGETIP dossier Total waaye tamit ñi nga xam ne mënuñu marche ñi nga xam ne mënuñu sitting ñi nga xam ne wax dëgg yàlla mënuñu toog fii ndaxte bu ñu toogoon fii nit yi tëye seen gémmiñ ñooñu mënuñu leen sanctionné ndax ay soupçon que gendarme bi moo informé Guy Marius Sagna yow kay li nga war a wax mooy ndax bu ñibbisee Meknès Maroc war na war na monter loolu mooy ndeyu wax ji ndaxte boo respecté woon yoon xëy na loolu du am ba pare fan la gendarmerie teg ne. gendarme moo ma informé ak bu ma informé xanaa man nekkuma député gendarme yi. xanaa man nekkuma député policier yi. xanaa man nekkuma député les militaires les agents d'hygiène les sapeurs pompiers les agents des eaux et forêts lu tax ñu leen di sanctionné do man du ma nangu ñu leen di sanctionné léegi nag comme général Moussa Fall moo nekkoon ci bopp gendarmerie jamono bi ñuy sanctionné Sidi Niang sama xel mën na ko comprendre. duma ko nangu de waaye sama xel mun na ko comprendre waaye loolu dafay jeex donc sii di Niang nañ ko bàyyi mu dem wax mosuma dajeek moom xaw ma lu muy nirool xaw ma baatam xaw ma dara ci moom xaw ma dara ci moom te général Moussa Fall ak gendarmerie ñu ko woon def jamono ji nga xam ne président Bassirou Diomaye jaaxaar fay ak son gouvernement nee nañ dañuy dooleel les lanceurs d'alerte mais ñun ñu nekk ay député du ñu dévoilé suñu source comme waa presse bu fekkee nag dañoo bëgg man Guy Marius Sagna ma dévoiler sama source du ma ko def li am solo mooy ndax Sénégalais bii li may wax nooteel la am déet bu dee nootel lañu ñu régler ko donc euh, ñenn ci chef yi ñenn ci chefu gendarmerie ñenn ci chefu police nañu bàyyi seen yëfu nañu bàyyi seen yii gendarme yi sonn nañu policiers yi sonn nañu lii laa si bëggoon yokk et ne affaire bi dinañ ko topp c'est ça qui me dérange waaw c'est ça qui parce qu'au Sénégal il ne peut pas y avoir d'étrangers au Sénégal tous les Africains sont chez eux comme en principe les Sénégalais sont chez eux au Mali au Burkina en Gambie en Mauritanie en Tunisie en Afrique du Sud c'est ça qui me dérange mais je comprends très bien mais c'est ça qui me dérange d'accord nañu xool ñun pare nañ pour def médiation total pare nañ pour def médiation ngeen régler li ngeen war a régler fay li ngeen war a fay liggéeykatu total pare nañ pour def médiation ngeen régler ko ba pare ngeen bàyyi seen yi ngeen di def ou non pare nañ pour def médiation ngeen bàyyi yi ngeen di def bu ngeen leen fayul dinañ leen defal publicité gratuite man de defe naa dem naa benn yoon wala ñaari yoon uno waaye ak lii may dégg nii bu ko uno naree continuer dootuma teg sama tànk uno ndaxte bëgguma sama xaalis di servir muy noot ay liggéeykat du dëgg du yoon il faut mettre de ma ne uno bu ko réglé wul bu ko changé wul bu waxtaanu bu waxtaanul ba déggoo ak ñii mu dàq ba pare mu améliorer conditions yi ah ragal naa FRAPP def campagne contre UNO de wax sénégalais yi ne nañu dem ci feneen waaye bu ñu dem ci UNO ndaxte UNO li muy def mooy ay contrat de trois mois waaw di ko tegle di ko tegle ba muy def ay at ay douze ans d'intérim donc UNO nanga nga sa cas wax dëgg yàlla tal nañ leneen lu dul defal la publicité gratuite waaye boo réglé wul situation liggéeykat yi ñu defal la publicité gratuite te bañuñu ci dara et c'est valable pour les autres entreprises euh, nous sommes ici pour exprimer toute notre solidarité aux, aux travailleurs euh, arbitrairement licenciés euh, par le groupe Total, le groupe Uno et AGETIP. Euh, nous les avons entendus. Nous les avons entendus et nous avons permis qu'ils soient entendus. Parce que l'étape dans laquelle nous nous trouvons, c'est une étape pendant laquelle le gouvernement fait un état des lieux pendant laquelle le gouvernement fait un audit